allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi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 bu ngeen sante xéwal yi ma dottil leen lu kawe seen njort kon ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa moom mi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan yal nañu yàlla may kendalug jàmm amin ya rabbal mbokk yi yéen a ngi fàttali ko ba léegi ñu ngi ànd ak ci vacances ba ñu nekk tout tànk yi ñu yàlla dénk ñu war leen war a mën a teete ci moment vacances ya nga xamante ni moom lañu nekk ni ba keroog ñuy occupé di jimaleek ñoom ci école yi ci daara yi lépp loo xamante ni doomu aadama bi war na ko war a mën a jox doomam kado njàngum diini xam-xamu islaam moo ci gën a ëpp solo lépp loo xamante ni doomu aadama war na ko war a mën a jox waa kiram comme kado njàngum diine moo ci gën ëpp solo moo ci gën a am valeur ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi nii duñu baaxe ci maana xadis ci la suñu yaay Aisha radiyallahu anha solo nee amul dara la nga xamante ni nit war na wara war a mën a jëfandikoo comme cadeau jox ko la yàlla dénk ci takkandeer lu dul yàlla mun na ko jaarale ci ñooñee ñu doon sabab ngir mu bañ a tàbbi ci mbugalu yàlla su ko defee képp a koo xamante ne yàlla may la nga xamante ne mooy njaboot nga la waay nang leen géema yar na leen leen géema jàngal diini islaam nang nga leen géema won la nga xamante ne mooy la yàlla buur bi tabaraka wa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xadis bi an ummil muminin aishata radiallahu anha jëlee nañ xadis bi ci way juru way gom yàlla ñi di suñu di njaboot ci suñu yonent bi di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha yal na ko buur yàlla gërëm uh, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee mu ne ñu laysa ahadun min ummati amul kenn ci samay xeet koo xamante ne yacuulu thalaasa banaatin aw thalaasa axawaatin yàlla dénk ko ñetti doom yu jigéen walla ñetti doom yu góor ñu doon ñamu meññ ñu doon ñamu jur mu taxawee leen jàngal leen toppatoo seeni dundin moo tax mu ne fa yuxsinu na mu rafetal jëmale ko ci ñoom rafetal seen dundin wan leen ne yéen waru leen nekk ñay taxaw di yore seeni ngànnaay di jël la ci nit ñi won doom yu jigéen ñi ne leen yéen waru leen nekk ñuy taxawaalu ñu di leen di jox xaalis yéen waru leen jikku jikku wi nga jàngal leen islaam yóbbu leen ci daaray ummul muminin jàngal leen yóbbu leen ci daaray abdullahi ibnu mas'ud yooyu yëpp ay internat jigéen ñi la ak internat góor ñi nga yóbbu leen daaru istiqaama nga yóbbu leen ay internat ya nga xamante ne mooy Ali Imran nga yóbbul leen ay internat yi nga xamante ne far ñu war a mën a passer vacances yi yëpp ay béréb lañu yoo xamante ne njàngum alquran ak njàngum yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam njàngale yonentu bi ak njàngale mag ñu baax ñi lañ fay nampe tuut tànk yi lañu fay jàngal tuut tànk yi la fa tànk yi di nampe alquran ak sunna ak aqwaalul ulama saalihin njàngum alquran ak doxaliinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak doxalinu mag ñu baax ñooñu loolu mooy lañuy jàngale ci béréb yooyee képp ku yóbbu sa doom ci béréb bi yañ leen tuddal nii ah bem fa for nga rafetal dundinam gën ci rafetal dundu njaboot mooy nga teg ko ci siraatullahi al mustaqim yonent bi nee na képp ku yàlla dénk ñetti doom yu jigéen wala ñetti doom yu góor ñu doon ay sër wala ay frère nga rafetal seen nekkin ñoŋal seen nekkin jag jekkal seen doxalin ah yonent bi ne illaa kunna lahu sitran minan naar yàlla dina def ñooñu ñu doon barrière ñu doon garde-fou ñu doon sitir ñu doon gàllankoor ñu doon barrière la tax doo dugg safara waaw kon képp ku bañ dugg ci mbugalu yàlla ëllëg bés pénc ndénkaane bala yàlla dénk ci ay doom yu jigéen ay doom yu góor ngalawaay na nga géem a góor góorlu wan leen alquran ak njàngale yenent wi sallallahu alayhi wa ak la fuy mag ñu baax ñi bay su ko defee ñooñu dinañu doon barrière balay bañ a tàbbiloo ci safaru su yàlla allahu akbar moo tax mu ne laysa ahadun min ummati amul kenn ci samay xeet yaulu thalaasa banaatin aw thalaasa axawaat yàlla dénk ko ñetti doom yu jigéen ñu doon ay sœur walla yàlla dénk ko ñetti doom yu góor ñu doon ay freer fa yuxsinu ilayhinna mu rafetal jëmale ko si ñoom ñaar seeni nekkin njàngale bi mucc na ayib pas-pas bi leer na colu beeg melokaan beeg kersa bi lépp tegu na ci nañ ko yonentu bi jàngale yàlla dina def ñooñu ñu doon barrière ci wayjur boobu ngir mu bañ a tàbbi safar mbokk yi lii neexul aha kañ de kon am na loo xamante ne jar naa bàyyi xel lii moo gën gaay di organiser seen nangamu vacances ak nangamu vacances waaw colonie de vacances soxna Mari bu dee baat bi noonu la colonie de vacances aayul waaye na dëpp na ko islaam jàngale waaye dajaleeloo ay tuut tànk yi fenn ñuy tubaka dal di wëy ak a fecc loolu képp kuy jullit bu gëm yàlla war ngaa musal sa tuut tànk ci anam yooye ak lañ la fa mënti jox ndax du résultat ña koy organiser doo fa gis seeni doom ña koy organiser doo fa gis seeni doom kon ñàkk ak bëgge bum la tax a jaay sa avenir doom nga di ko hypothéquer kon soxna mari ndegem noonu la waaw sa avenir doom bu ko teg ci pénc bi njaay àll beeg bukki yéeg gaa ñëw di ko këf yóbbu sa doom dem yàq carrière kooku ëllëg mën na fi doon nitu duni bu mag ñu ne ko xee bu ñu fontoo xoolal na nga nekkee woon xoolal ba nga nekkee woon tuut tànk lii nga fi nekkee woon kooku ana koy naw ñu gis sa doom ci pëjom bi muy tobaka dal téye micro au lieu mu toog mu nekk ci pëjom bi di jàng ñetteelu saar bi nga xamante ne moom lañ leen doon wax ci fukki saar yu mujj yi saar ba nga xamante ne mooy fa yàlla di waxee ci alquran audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim araayta alladi yukadibu biddin fadalika alladi yadcu lyatiim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون au lieu sa doom bi nekk ci pujum bi muy tari saaru alquran waaye mu nekk ci pujum bi di tëb ko dal di wax ay wax yoo xamante ne kenn mënu koo cautionné kenn mënu koo dégg te ñi ko koy defloo ñoom seeni doom duñu nekk béréb boobee kon na nga ximiliku yow la yàlla dénk sa doom yow la ko yàlla di laaj lu tax yéegalu ko ci pujum bi mu jàng alquran lu tax yégalu ci podium bi mu tëri fa xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu si maana xadis iqra'ul qur'an fa innahu yaati yowma alqiyaama shafian li asxaabih xadisu abi umaama radiallahu anha yonent bi nee na dee leen di jàng alqur'an dee leen di jàngal seen doom yeg seen njaboot yi ma yonent bi tax yonent bi ne ñu fa innahu naka alquran de yaati yowmal qiyaama day dikk ñëw taxaw nekk shafian mu di avocat ku muy plaider haa looloo war a jaral laaj looloo war a jaral laaj muy plaider koo xamante ne li asaabihi mooy ki ko safo ki koy jàng ki ko faale kii dem fañ koy jàngee ki koy jàng jàngal ko doomam yóbbu doomam daara yóbbu doomam internat kii mooy ki dut yóbbu doomam fa ñuy woyee ak fa ñuy feccee parce que nee na yi yaay kopparu àdduna si la bëgg kon demal woy demal fecc demal yéeg si podium bi ngay tubb ko dal ñu jox ma benn cent mille wala ñu jox ma benn deux cent mille wala benn trois cent mille bu gënee bi bëri sax ñu jox la benn cinq mille yow hypothèque ga da ngaa sa avenir yu doom ngir lan cinq cent mille bañ lay jox sa enveloppe nga lekk ko mu jeex sa abonneur yi doom mu daldi di aju kooku dootul nekk lenn la ko nit ñi di nawe est-ce jar na ko tontu bi mooy déedéet jaru ko kon ana la ko jar mooy nga jël sa doom yóbbu ko ci internat yóbbu ko ci daara yi mu jàng alquran keroog boo fi jógee ko bu jullee ñaari rakk mu daal di tàllal loxom mu ne allahumma اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما ووسعهما wacce madxalahuma waxsilhuma bilmaai walsalji walbaran ñaan bi sa doom bi du la ko ñaanal sa doom bi mu di la ko ñaanal yàlla di épargner ñaan boobu mu nekk xéwal ak njëggal ñu andil la ko ñu andi la ko ñu ni la sa doom ba nga bay àddina jàngal ko alquran won ko yoonu siraatul mustaqim kooku mooy ki la yónnee kado bi allahu akbar mbokk yi lii gënul ah waaye lu tax ñu war a bàyyi lii fii ñu jël suñu doom yi di leen bàyyee seeni bopp seytaane kuf leen yóbbu leen ci yoonu nasaara wala yóbbu leen ci yoonu yahud keroog boo fi jógee ko wallahi ñaan bu mujj ba la gaay di ñaanal mooy keroog buñ la robee bu gënee bëri ba bëri quarante jours bañ lay ñaanal jeex na xalaas intaha fàtte nañ la allahu akbar te teraay boobu noonu daa gudd ak yàgg boo fi installé wut lu tax teraay boobu nga di si góobee ay yiw gisuma la allahu akbar ñu ne paxum bàmmel suuf kese la bu la fa pusu jame yaa ko yóbbaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu yutba'ul janaza thalatha ñetti mbir mooy topp niiw bu ci jiitu mbokkam yi ñaareel ba alelam ñetteel ba jëfam mu ne ñu fa yurjiul isneeni wa yabqa maal waaxid ñaar ñi dañuy dellu mu desandi foofu ak benn bi yi dañuy dellu benn bi mu desandi ak moom kon ñetti mbir ko topp jëfam alalam ak njabootam njaboot yi dañuy dellu alal bi day dellu alal bi sax du génn buntu kër gi waaw alal bi buy génn buntu kër gi mooy kontu ba ñu wiidee ngir jënd fa nag ak ndawal ak ceeb diwlin ak lañ koy toggee parce que dafa am ña ñëw ci dëj bi dañu war a añ waaw dëju Sénégal fii dañuy añ allahu akbar ñi nekk ak seeni naxar ñi nekk ak seeni tiis ñi nekk ak seen xol bu métti ñu di leen toogal ceebu jën wala ceebu yàpp ñu toog di ko lekk te lii yonent bi wax na ko nee na bokk na ci màndargaay axiru zaman jege si na màndargaay njeexantale àddina bu nit ñi di wër di xaaraanu ñamu dëcc yi na ngeen takk seen bagage yi xam leen ne ee eh, yaay penc jege si na waaw ngeen toogee gis gaay di wër di toogaanu di xaaraani lan la ñuy toogaanu di ko xaaraani mooy ñamu dëj yi ñu ne moo lu fi xaw ñu ne fii am na benn notable benn personnel benn benn benn benn benn bu wàcc liggéey nga daldi samp say ban wala teg sa siis toog di xaar looy xaar laaxu suba ak lan añu bëccëg subhaanallah moo ne fii amul takk amul ngénte dëj lañu wax dëj dëj am na bakken bu wàññeeku ci famille boobu ñoo nekk ak seen i naxar ñoo nekk ak seen tiis allahu akbar waa koñ bi nara togg yëkkal waa koñ boobu waa kër woowu parce que tey amuñu jot talu ñoo togg talu ñoo yekk talu ñoo taal cin waaye waa kër googu muy servir waa koñ woowu loolu Sénégal fii lay xewee fii lañ ko gis ñu aada ko bépp ko deful sax ñu ne ah mbaadu waaw kañ ñu texte la ci n'importe quel nom ñu yàlla kon njàngum diine bu leer bu set bu dëppoo ko njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam moment wii la ñu war a jàpp loxo tuut tànk yi wan leen diine su ko defee la yonent bi wax ne képp ku yar sa ñetti doom yu jigéen walla sa ñaari doom yu góor nga rafetal seeni yarin ah ñooñu keroog bés penc doon kiiraange balay musal ci mbugalu yàlla buur bi tabaraka wa taala mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci waxtu wi si daara ji lépp lu ñu fi dégg yal nañu ko yàlla wërsëgal ñu mën koo jëfee yal nañu déggaloo suñu diine ci anam bu dëppook njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci saqiyul ma min afdali sadaqaati eh, al jaariya lil mayit waaw nandal nit ñi ndox gasal nit ñi teen gasal leen forage installé leen robine nee nañu loolu mooy sarax bu gën ci néew bi nga xamante ne moo xam sa wéyjur nga ko defal moo xam sa bopp nga ko defal moo xam si sëriñ nga ko defal moo xam ki nga ko defal fas yéene ka kaa jox mu doon sadaqatu jaariya an anasin jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu naan anas radiyallahu anhu yal na ko bur yàlla gërëm an an saad ata nabi sallallahu alayhi wasallam naka saad dafa ñëwoon ci yenentu bi sallallahu alayhi nee na anas nee na saad dafa ñëwoon ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko fa qaala ya rasulallah yow mi yàlla yónni inna ummi tuufiyat naka sama wuyjur bu jigéen dafa génn àddina walam tamut te moom faatuwul afa yanfa'uha atasaddaqa anha moo ne ba xam dina ko njëriñ bu ma ko saraxale qaal yonent bi ne ko naam waaw boo ko saraxalee dina ko njëriñ de yonent bi ne ko wa alayka bil maa wa alayka bil maa yonent bi ne ko war na la nga saraxel ko ndox war na la nga saraxel ko ndox kon saraxel sa wajur bu jigéen ndox anam yu bari la buñ ko waree wàccee def ci ay taaliqaat andi si ay commentaire dina bari lool waañu ñu doyloo ci lañ leen bëgg a wax si nii rek anas nee na saad dafa ñëw ci yonent bi salaa salaam mu ne ko sama wayjur bu jigéen dafa faatu dafa génn àddina walam salli te ah daawul daawul daawul jokk te munuma kaa jokk afa yanfa'uha an atasaddaqa anha est-ce que dina ko njëriñ bu dee saraxel naa ko bu dee génneel naa ko sarax léegi nag ah sama yaay de dootuma ko jokk hmm. dootuma ko jokk jokkub dagg na sama diggantek yaay sama yaay relation bi dagg na sama diggantek sama yaay moo ne bu ma ko saraxalee ba xam dina ko njëriñ yonent bi ne ko waaw waaw dina ko njëriñ kay mel ni Saad daka laaj ana la laa ko war a saraxal yonent bi ne ko bu dee da ngay koy saraxal na ko saraxal ndox kon mu déggee ci ne a ah, la yonent bi tegtal ne saraxal way dawlu ba nekk barsak sarax ba koy njariñ foofu ndegem mooy ndox kon leneen lu dut ndox bu ko nit saraxalee ka nekk ca barsak loolu leneen la te lii yonent bi ko tegtal bokkul dara ak tariyax yeeg la gaay di tegtal nit ñi sarax waaw suñu gaay yi nga xamante ne ñay dem ci bërëb boobu xam nañ leen miin nañ leen ñooñu lañuy tegtal ñañuy génneloo sarax ça n'a bokkul dara ak la yonent bi tegtal saxaabi bi moo ne gasal sa yaay teen na nga ko fas jox mu doon sarax ba koy fekk fa moom na ko gasal robinet na ko installé robinet gasal ko forage ila yi boo ko mënul nanga xool nit ñi nga xamante ne dinañu soxla ndox ci jamonoy tàngoor bi ñu nekk nii ngay jënd sachet ndox di ko distribuer ci ñoom wa illa nga yóbbu ko ci jàq ji walla nga jël sa kamiyon walla sa euh, yaa xam sa trois cycle waaw war gaynde yëpp fa ndox daal di ko yóbbu ci internat yi nga def ko sarax ngir lay fekk si wuy jur foofu mu tëdd bëri na lool bëri na lool yal nañu ko yàlla man loo yal nañu ko yàlla jàppandalal amin ya alamin tey incha allah mbokk yi ba léegi ñu ànd ak yéen ci ah, juróomeeli buntu bi nga xamante ne mooy lañ doon waxtaan ak yéen ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak la mu tegtal ne noonu la jullit bi war a comporté woo bu dee yéen a ngi fàttale démb ñu ngi taxawoon ak yenn ci ñeenteeli buntu bi mooy lekkee sa loxo ndeyjoor waaw ak la bi yeddil yum naa lekkee sa loxo ndeyjoor yonent bi nee na bu kenn di lekkee ci loxo càmmoñam mooy loxo gauche nee na seytaane loxo gauche lay lekke loxo càmmoñ lay naane loxo gauche lay lekke ca lay naane waaw kon yow jullit bi bu dee da ngaa bëgg a njàngale yonent bi day lekkee loxo ndeyjoor loxo droite day naanee loxo droite lekkal ci sa loxo ndeyjoor ngay naan ci loxo ndeyjoor boo koy def nga tudd yàlla ni bismillah tey ñu war a andi juróomeelu buntu bi te mooy yaakulu mimma yali bu daan lekk moom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam la nekk ci wetam béréb ba mu jàkkaarloo fa loxoom doon yem daawul jël loxoom di ko teg ci ndigg bool bi ci digg ndab li mu di lekk loxo bi di jaar fu ne ci ndab li déet da doon jëfandiku la la la moom voilà la jàkkaarloog moom béréb ba mu tiim bu doon jëfandikoo ñam béréb boobu la doon jëfandikoo salaa salaam moo tax mu ne yaa yaakulu mimma yalihi da doon lekk bërëb ba jàkkaarloo ak moom sallallahu alayhi wa sallam li xadis yaa gulaam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik rawahu buxaari ci xadisu yaa gulaam xadis bi yonent bi daf ne xale bi sallallahu alayhi wa gulaam yow ndaw li yaa gulaam yow xale bi yaa gulaam yow jeune bi kon nañ leen dugg ci centre formation yonent bi sallallahu alayhi wa mu jàngal ñu ñun ñëpp ak mboolem jeunesse ngir moo doon suñu professeur bi nga xamante ne lépp lu ñuy génnee ci centre formation ba yonent bi du ñu former ci jikku ci anam ba ñuy toggee ci pénc bi amul benn scientifique ku ñu ko mën a jàngal amul benn gisaanekat ki ko xam ba mu di ko jàngal waaye amul benn buxaaba ki ko xam ba mu di ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla xamal mooy ki ñu ko jàngal te moone ne yéen yàlla borom bi tabaraka wa taala moo ne ñu wa in ngeen koy roy rek du ngeen di jub xoj du ngeen jàdd gauche du ngeen jàdd droite moo tax mu ne yaa gulaam yow xale bi kon yonent bi daanoon na wax a xale yi waaw daanoon na wax a xale yi de na leen formé tamit yaa gulaam yow gone bi sàmmillah balaa ngay lekk na wax bismillah na nga tudd yàlla wa kul te ngay lekk bi yaminik say ndeyjoor kon bul di lekkee sa càmmoñ ngay lekk sa ndeyjoor mooy loxo droite wa kul te ngay lekk mimma yalika le féete ak yow ngay lekk li nga tiim ngay lekk la jàkkaarloo ak fa nga toogee ngay lekk li si sa kanam waaw waroo jël sa loxo di ko yóbbu gauche droite di ko càmbar-càmbar di ko yóbbu gauche di ko yóbbu droite di jël ndawal ba ci digg ndab li waaw bu dee ndawal la bàyyil nga daggal ko sa bopp tegal ko sa bopp wala bu fekkente ne am na ko la koy tegal mu tegal la ko waaye nga jël sa loxo di ko yóbbu ku nekkee sa loxo ndeyjoor wala di jël sa loxo di ko jëmali ku nekkee ci sa côté gauche wala nga jël sa loxo di ko yóbbu ku nekkee sa côté droite wala ku nekk ki nga jàkkaarloo sa loxo bi daal muy wóor ci ndab li yonent bi nee na déedéet yow xale bi bul di lekkee nii bala ngay lekk nel bismillah maa ngi tàmbale sama lekk bi ci turu yàlla bismillah te mu wone bismillah képp ku ko def ci la ngay tàmbale seytaane dalay daw seytaane day déplacé wu béer boobu seytaane du fa toog du fa taxaw kon boo ko waxul seytaane day ànd mooy lekk ak yow kon lii mooy juróomeelu bunt bi su ko defee ñu bàyyi ko xel yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne yaa gulaam yow gone bi yaa gulaam yow xale bi sàmmillaaha na nga tudd yàlla booy lekk nanga wax bismillah waaw wa kul bi yaminika na nga lekkee sa loxo ndeyjoor nanga lekk sa loxo droite mais droite na nga lekkee sa loxo droite wa kul mimma yalika na nga lekk la sa kanam bu dee yow kese yaay lekk nanga nga lekk lekk bu normal xataa boo desalee la ngay lekk ni mu jekke bu keneen ñëwee war na kaa mën a jëfandiku lii ku koy dundee buñ la xoolee dinañ xam ne yow danga am yarinu islaam moo ne anakan ku la yar yarin bi mel mooy sallallahu alayhi wa ma yàlla wax ne wa innaka la ala xuluqin adim yow de jikko yu rafet yi fu ñuy jeexee jikko yu noobul yi fu ñuy jeexee sa bos fa tàmbali di dem kon amul kenn ku fi nekk di la dab ci jikko ju rafet sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu yàlla tànnal mu def ko mu doon axirul axiru nabiyin mu nekk yonent bu mujj wa imaamul mursalin mu nekk njiitu yonent yi moo ñu baaxee xadis bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne mooy yonent bi yàlla garanti kàddoom mu ne kii du wax ci coobare kenam waaye lépp lu mu jot a yeggee lépp lu mu jot a wax yàlla moo ko wax yu laa yantiqu anil hawa la ko yàlla wax kii du wax ci coobare bakkenam in huwa illa wahyun yuha lépp lu mu wax yàlla ka ko wax yu sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ña war a joxe xibaar ci nasaraan ñuy nuyu suñu mbokku fidèle auditeur Kéba Ndiaye depuis Kër Massar vingt 24 ci Kër Massar ci parcelle ñuy nuyu Aliou Cissé moom it Kër inter vingt 24 ci euh, Kër Massar bi léegi ñuy nuyu Aliou Niang Aliou Niang des voix Kër Massar ak euh, Ahmad Diallo ba léegi moomit it mu ci des voix Kër Massar yi mu nekk euh, suñu xarit buy déglu émission bi saa su ne waaye ñuy nuyu Serigne Mbow Serigne Mbow moom mu nekk ci des voix Kër Massar ci euh, rond-point bi ñu di leen nuyu di leen ziar ñii ay fidèles auditeurs lañ ñu ngi ñuy bàyyi xel saa su ne. ñuy nuyu suñu yaay ju baax depuis Ziguinchor di Adja Khadijatu Dramé waaye di nuyu suñu baay ju baax ji di euh, Pa Modibo Dramé di nuyu suñu waa kër ya fa nekk di Safiatou Dramé ak suñu waa kër bi léegi di Fatmata Jaaju di nuyu suñu njaboot ya nekk Gambi Fatmata Dramé ak borom kiram Mohamed Cissé depuis Angleterre ñoom ñëpp ay jëmbalañ ñuy bàyyi xel émission bi lu jub si kàddu yi ñu santee ko yàlla lu ci dëng nag ñu ngi koy ñaan yan ñu ko yàlla buur yàlla jégal amin ya rabbal alamin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahumma ya rabbi amina fi awtanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma amin ya rabbal alamin